asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum sama mbokk internet yi yéen ñi nga xamante ne yéenay safoo Senewood TV tey ñuy ñëwaat ak yéen seen émission waxtaane ko seen émission waxtaane ko nag mën nañ fee waxtaane lu ne yéen a gën a xam di leen wax ne rek di leen bàyyi xel si seen YouTube bi Senewood TV di partager tey abonné di commentaire te nag ma dala fi sama tailleur bu mag bi ñu gën ko xam si maam Thierno Diouf Lambaye ah borom Pikine a ngi nii maam Thierno nuyu nañ la. jàkkaarloo ak yow rek. ci ñu waxtaanee ko. waaw waxtaane ko nag comme ni la ko waxee rek eh, dañu mën nañ fee waxtaane lu ne mais tey moom dañoo jël benn thème boo xamante ne thème bu sensible la boo xamante ne mën naa ne lëmbe ne jamono ji muy soxor yéen yi nga xamante ne da ngeen di yëngu ci wàllu tailleur liggéey nan nga gisee soxor ak soxor lan moo koy waral euh, donc su ma comprendre tey ci ci ci soxor lañ koy tënk mooy ci maanaam baatu jalousie quoi. waaw waaw loolu moom c'est important donc dañuy sawar pour wax ci. Mhm. ndax yaakaar naa Sénégal dafa mel ni soxor dañ ko jël rek sangoo ko <laughs> ñenn ñi moom dañ ko naan déjà parce que dafa bokk dafa mel ni dafa bokk suñu dund quoi. ah man de li ma jàpp man dama xamul nit ñi léegi dafa hymne dafa mel ni hymne national daal man. Mm. nit ñi soxorante bi ci dëkk bi mais lan mooy waral nit ki di soxor. lan lan moo koy mbébét daal lan mooy sabab bi si soxor. waaw Nafi d'après man après sax du ma du ma comprendre quoi que damay gis nit ñi. Mhm. ni ñuy mel di jalousie sa digganteeg doomu aadama. Mhm. man lépp lépp rek pour man ci mbirum suñu borom la. parce que mhm. tey yàlla mooy jël benn nit yóbbu ko foo xam ne yóbbu fa moromam. léegi nag yow boo gàttee xel da ngay jàpp ne suñu borom dafa beral kooku loxo. fekk na yow suñu borom dencal na la loo xam ne sax moo dàq lam jox keneen. des fois nag aussi mooy waral nit ñi di jalousie wala ñu gis benn maam Thierno tey. Mhm. am na lii wala mel na lii yow nga ne danga nga ko bëgg a soxoree. mais surtout yéen ci côté bi nga nekkee muy côté tailleur bi liggéey bi ngeen ni liggéey dafa doy waar soxorante bi bari na fa trop trop trop. waaw loolu moom en yi dund nañ ko lu baree bari ndax euh, muy métier tailleur léegi rek maa ngi koy wax ak sama gars yi ci groupe whatsapp man tailleur wututuma ci dara am naa ci lu nekk dem na ci fu nekk. samay rak rek laa ci gunge moo tax képp koo xam ne da ngay ñëw pour soxoree ma rek. yaa ngi da nga tardé quoi <laughs> parce que nekkuma sax ci état boobu. mais dund dund nga ci soxor moom. ah a ñàkk parce que bi may jàng métier maa ngi koy fàttaliku loolu yàgg na 2000 2000 2008. am na benn fi ma jàngee métier quoi. Mm-hmm. yàlla dafa def ma ñëw patron bi bëggoon ma xam nga. ñëpp bëgg ma foofu noonu client yi ku ñëw rek mën ngay laaj. mais ñu dem ba par la suite après ma def ay problème yu bare yoo xam ne. ma mujj ci place bi ko problème yu mel nan. waaw problème bi mooy am benn bis may tëgg làmb dama sob nag. dangay yëngu ci làmb waaw sopp dama sopp xam nga. Mhm. ñëw fexe buñ xaw ma xabtal la xaw ma nu mu demee noonu. Mhm. benn booy tooñ ma rek ma dóor ko kuur mu war a faatu. waaye maam Diena amoo fit. Ah, yow mën nga dugg si tailleur bi. Mhm. foofu tar yow làmb ji gën a métti nga bàyyi tailleur bi yow di dugg ci ay tëgg làmb. yow yaa jaay sa bopp ah même làmb ji sax noonu ci biir làmb ji fi ma bi ma koy tëgg sama base. Mhm. damay fàttaliku bu may tëgg làmb di dem war a tëgg stade. Mhm. booy dañu doon wax kii dafa dooj kii dafa waane. ay moroomu papaam nekk fi. ñu ko mhm. ëpp alal nekk fi di tëgg làmb moom mu ne moom promoteur la fekk gëm-gëm laa doon demee. waaw ni da ngay gëm sa bopp ah, te da ngay osé tamit man àdduna lépp lu may def rek ngëm-ngëm laa ciy dem. dëgg la moo tax billaay faalewu ma sax kuy wax wala kuy def ay mais soxorante bi man bu ñuy wax mën nañ la ci cadre liggéey ci lépp mais boo xoolee dafa dem ba ci biir kër yi ñi bokk ndey ak baay sax. Hmm. dañuy soxorante di nga gis ni soxore nit ba di ko yàqal ci cadre liggéeyam mooy mooy sab ki nga bokkal ndey ak baay sax dalay lay soxore hmm. say mbokk dañ lay soxore dina leen jaral ñu def la loo xamante ne gaa mënuñu laa xañ sa wërsëg li la yàlla jox. Hmm. mënuñu la ko xañ mais dinañ la gàllankoor teg la loo xamante ne dañ lay tàddee sax lay wax. na loolu nan ko gisee. loolu li ma ko gisee dafa leer joo waykat bi wax na ko sax li nga jéem li nga li nga daj ci yàqal ma boo ko jéemoon ci sa bopp ba tey avancé nga comprendre nga mm-hmm. parce que la fekk ngay dem ci sëriñ pour pour yàqal nit ki mm-hmm. sëriñ boobu bu dee aay na na def na na def nga raw nga raw nit ki parce que man tey damay ñaan yàlla ci li ma nekk ma raw ci ñëpp sut leen ñëpp loolu laa ciy ñaan suñu borom mais bu dee da nga gàtt xel ba yor sas weccet su ndaw mu néew mu bari nga dem ne da koy jox nit pour mu yàq nit ki yaa ci erreur sëriñ bi mu ngi ci erreur moo tax euh, bis penc yàlla boroom xam-xam yi la njëkk soxla te da leen di rëbb. lu tax mu soxla la. waaw parce que mënu ma nangu nga am xam-xam. Mhm. jàng fi nga war a jànge mhm. jàng alxuraan jàng lépp. Mhm. luy luy wàllum ñaan. yow benn objectif rek nga am mooy def ci lu bon tas sëyu jàmbur. su loolu. gàllankoor nit. handicapé nit yow loolu rek nga mën. parce que dama koy dégg sax ci yenn sëriñ da ngay jékki-jékki ñu ne la buñ la bëggee rey même pas une minute. mu nekk bàkk ci ñoom. moo tax may la nit dina la soxale ba dem rey la maanaam rey bi mu lay rey du dalay jàmpaaka ñi fiy jàmpaaka rek dañoo siiw xam nga rek soxor ci lépp lañ ci mën a wax mooy ci kër yi ci lii te nit ñi dinañ la da ñii jàmpaaka la ñu gën a gis que ñi nga xamante ne dañuy dem ci mystique yeeg yooyu. léegi comme dugg nga ci sëy dañ lay laaj lan nga mës a dugg ci lan nga mës a dund ci biir sëy loo xamante ne léeg-léeg ne nit moo la soxore def la ko loo mës a dund. waaw loolu nag peut-être si sëy moom pour man li ma dund la ñëpp dund képp kuy ñaani rek baat ba dina la dal. Mhm. mën na koo yor wala mënu koo yor. dëgg la baat boobu moom bàkk la ci doomu adama yi. Mhm. képp kuy dem rek fa seeni yóbbu sa warugar rek. Mhm. jàppal ni baat bi mu sa ginnaaw léegi nag day des si yow. mais koo mënta yor yaakaar naa doo dem te yàlla sax mooy yor. waaye xam nga yàlla rek moo mën a yor. ndax des fois nit dina takk nit sax. amul dara. dëgg la mais kam takk gore lool. toog xaar boole li ko neex ak li ko naqari. Mhm. bëgg la ci xolam. bëgg te yàlla tax loolu nag mbirum suñu borom la. léegi bu ci ñenn nit ñi ciy wax nag ñi nga xam ne tey par exemple dañoo gàtt xel wala xamuñu àdduna ba di ci wax. Mhm. ñoom ñoo ngi ci erreur. donc côté sëy moom. lu lu graaw la ku nekk dund nga ci lu metti waaw ku ne dund nga ci moom mhm. côté sëy moom ku ne dund nga ci muy man keneen ak keneen ak keneen mhm. mais nit mën na cee dund di nga ci dund loo xamante ne amaana sa yaakaar nga ne yaa kii yéen a bokk maanaam ku nekk ak li ngay dund yow lan dañu bëgg xam lan nga ci dund carrément ci sëy mhm. li ma ci dund carrément bon bari na parce que suñ borom boole na ma ak nit boo xam ne jàpp naa ni moo gën ci moo gën ci àdduna moo gën ci jigéen ñi aussi jàpp naa ni tamit moom doo ngay jigéen ci Sénégal ci mm-hmm. àdduna bi mm-hmm. loolu su ma neexee mën naa ko am nga si waaw ah? ah, jàpp naa ni lépp lu ma naqari woon sama àdduna tamit fajal na ko moom mi mm-hmm. parce que du c'est la première njëkkoon naa am benn yàlla weddi ma amaat beneen mais des fois tamit dina la may nit ba pare di la soxoree mais loolu la mën a nekkee si bien am na may la nit yow nit xool la yéene la nitam may la ko nga takk ko ba pare mu ko di la soxorewaat loolu loolu mu jublu ci lan waaw mooy yàq rek ndax des fois nit ki dina boole xam nga boole suñu borom dafa am fu mu koy jaarale mhm. tey su ma bëggee boo tey rabaa moo tax ma xam la tey mhm. wala nga tax ma xam rabaa mhm. ma bëggoon la may par exemple rabaa ngeen dem ba mel ci noo xam ne sax man damay fiir wala jalousie ma ne naa yàq diggante boobu noonu parce que lii bu demee du ma arrangé mais moom sëyul yow yaay sëy waaw mais ni nga ko xamee xamee ko noonu ok loolu day bëgg yàqal nit ki parce que avantage bi ci nekk. Mhm. da nga koy bëgg a xaj. dëgg la comprendre nga fi ma waxee. Mhm. loolu moom moo garaaw. kon daal ñun bu ñu gisee soxor moom comme ni ñu koy waxee dafa yaatu. muy fépp muy fépp mais même sa biir famille yaa ngi ko bàmmeel sax soxor nga fa. tax nit dina la soxal ba du la yéene ñaan gi ñu la war a ñaanal. nit dina faatu tey ma jàppal la benn en. Mhm. war laa jéggal te yàlla tax parce que yaa ngi ci suuf mënal doo sa bopp dara. mais faaw nga gàllankoor ma fi ma nekk. lekk nga waxal ma lu baax li ma daan dund. Mhm. samay ñaaw teef nga denc ko sa poos. Mhm. noo doo ko def. mais loolu ma yàq ci biir bàmmeel bi. loolu ban njariñ la am. waaw mooy soxor rek parce que boo nee soxor soxor dafa dafa. bëgguma nga jël soxor rek tënk ko ci benn. mais ki dee ki ki ki yàlla jël jël na ko ba pare. waaw da waroo fàtte lu dul ñaanal ko. mooy mooy ñàkk jéggal ko ñàkk xam àdduna rek ba tey loolu lépp dañ koy tënk si ñàkk xam àdduna te conséquence bi kañ lañ koy xam bis pénc bu yàlla wootee ñëpp war a atte la ku nekk doon xam lan nga doon jariñ sa bi la wàccee ci jamono. moo tax faaw sénégalais yi ak àdduna képp kuy nit di def traitation parce que sa digganteeg nit ki tey nit ki. Mhm. yàlla du dugal kenn safara yàlla sàkkul ku muy dugal safara. dëgg la nit mooy dugal nit safara. mais tey suñu borom mun a xool lim lim li mu sàkk lépp mu ne nit la ci gën a bëgg. Mhm. suñu borom du du lakk lu mu bëgg. suñu borom du jël nit bu mu bëgg di ko yóbbu safara mënut te nekk. ki nga gën a bëgg nga yóbbu safara. kon suñu borom bëggul nit ñi. dëgg la nit ñi ñooy yóbbu seen moroomu nit safara. nit ñi bis penc ñooy tardeel nit ñi ñooy tardante seen biir. waaw loolu moom ndax yàlla amul règlement lu muy seen suñu borom. max la tey lu garaaw lu nit ñi xamul. yàlla ay mbiram fii la koy attee ci àdduna. fii ci àdduna barki Ahmadou Bamba fii lay attee lépp mais bis penc diggante doomu aadama ak doomu aadama ñooy tardalante suñu biir. dëgg la parce que dafa am ko lu ñu war a lu ñu war a atte foofu boo xam ne tey suñu borom yoonam nekku ci. day mm. mal placé. te njéggal tamit day fekk jëf wees da ngay gis benn Mamy Diallo na fi def ko naka sa noonu mu dégg ne sunu ñun sunu biir ñooy tàddalante sunu alaaxira incha allah mu ne moom nu mu mën a def tàddal na fi li ko na fi def du ko baal mu ko waaw mooy léegi loolu ban njariñ la am mooy ñàkk xam kan nga wax nga ne mooy def loolu mami mami dafa ñàkk xam rek ndax xëy na bu xamoon li nit ñi xam wala li mag ñi xam mm-hmm. moom du rëy dina fexe def la tout yéene la rafet yéene la jàmm ñëw saafonte yow bu la tooñee oyof ñoo jéggalu la te yàlla tax loolu rëy la da cee nekk soxor am ci. mais waxuma ne nag kooku noonu la mel. dama dama dama exemple rek non non man li may dama koo xam kooku noonu la mel. dama noonu la mel sax noonu la ko yàlla bi def fii ma kenn du kar mais sa cadre liggéey maam Thierno lan nga ci dund. loo xamante ne leer na ne ndax fii di nga gis kuy tëj sa place ñëw fekk ñu tegal la ay xaatim te ki koy tegal bëggul lu du gàllankoor la bu jóg bul bul bul bul maanaam toujours tala sa bopp yow liggéey bi sax yow sa xel doo ci demati ndax mas nga dund loolu. waaw sama kaar liggéey moom li ma ci dund lépp bari na wax naa la ko. Mhm. mais yàlla moo ma suturaal. Mhm. te nag nit na moytu ku ndayam liggéey biir kër baayam. dëgg la kuy nit war nga ko sóoraale. Mhm. ñun liggéeyuñu dara de suñuy waajur ñoo liggéey. te muy dëgg. benn bi mos naa njëkk a tijji sama complexe. tuddee ko nit maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. complexe la waaw tuddee ko nit bu njëkk bi. Mhm. après yu bëri am ci. comme lan taxaw ci digg marché bi ne du yàgg dara diw tëj. <laughs> effectivement noonu la amee yàggul dara ma tëj. mais lan moo waral loolu du yàgg nga tijji tuddee nit. waaw nit ñi taxaw ne du yàgg dara. mu tëj yow pour man da nga war a góorgóorlu ba nit ñi li ñu wax. waaw bu mu am. xam nga yàlla dafa mhm. mën a seetaan. Mhm. mën nga wax dara yow nii li ngay wax tegoo ko fenn mais yàlla da lay dooleel yow. moo njëkk a dagg bee VIP. merci beaucoup. mais après yàq moom la. Mhm. parce que yàlla da lay yombalal lépp bàyyi la. dëgg la bàyyi la parce que moom mooy moom bu demee ba yàlla tey bi ñu sàkk moom moom lépp. Mhm. nga bëgg a taxaw ci place am. da lay bàyyi boppam rek. Ah, tey place boobu bi ma ko tëjee. Mhm. yàlla di def ma tëj ko tëj ko liggéeyu ma nag. mais lan moo waraloon nga pal tëj place waaw mooy li ma la wax rek ay mbir la loolu code la. xam nga fii code am fi de bi ma ko tëjee teewul maam Thierno turam mu ngi dem. ndax sama ruq sax su ma fa nekkee. Mhm. li ma war a def dama koy def. te chaque jour dafa am communication boo xam ne dama koy def man ñaw. Mhm. classe wu rabaa gi ñoo ma ci bàyyi parce que da ngay romb nit ñu ne a mhm. dama am ay rak. ñuy xool ci man. dama leen war a gunge parce que lu metti li ma daj ci sama métier man. ñaanu ma yàlla suma rak dund ko. ndax man dama liggéey jàng métier. dama dama jàng métier ba pare. Mhm. aw ma benn moyen pour am machine piqueuse. Hmm? ma dem di def embossement ñu may nax di ma exploiter comme jalousie bi am. des fois nit jël la di la fay jour journée quatre mille francs. mais ngay ñëw non ah, dangay ñëw di liggéey si nii moom mi la jël sax da lay mujj soxo rek sa diggante client yi. du bëgg yaa client yi ngeen ngeen nekk ay ngeen am benn link mais moom bu dul woon yow client yi du ñëw. waa mais xamuñu loolu mooy gàtt xel rek. parce que tey man boo ma jëlee di ma utiliser. Mhm. ma nangu nga di ma fay 4000 francs 4000 mhm. matul dara ci jamono ji. wallaay mais lépp lu ko waral rek. Mhm. mooy mooy dund ci ci conditions yu métti mooy nga juddu. Mhm. dal na ma fekk naa suma papa amul suma yaay amul. tey fanweeri junni yi ñuy jël pour jëndalee ma ko machine. non am na fu mu xaaj. dëgg la dañ koy nangul. da ngay rek demal sa bopp foncé. def embossement te embossement boobu du la mën a may machine. mais léegi nan nga def. ba am say machine waaw ni ma def ba am machine mooy. Mhm. bis jot rek ma dal ci benn coup bu doy waar rek jënd benn piqueuse. maa doo di leer man bi may tij non même pas dara jaraluma ko. sumaat ku ku ku mooy sa rek. Mhm. bu yoon jeexul rek waax sul du jeex. dëgg la yàlla ci kanam la nekk dana la ñëwal. Mhm. fonceel gëmal li ngay gëmal li nga gëm nga ñëw ma dimbale la. dëgg la ku xam loolu ci àdduna doo sonn man bi may bi may tijji suma place. man kenn mësuma may cent franc du famille. du jàmbur ne ma sa place lii maa la ko jox nit musuma financé banque musuma financé mhm. première machine bi ma jënd dama ko lijjante ba jënd ko bi may wut place sama jamono j xam nga ko am na benn téléphone Samsung bu tuddoon J2 moom laa jaay kuloo kuloo ko lijjanti ba wóobu sama avance cent quarante mille ba tey may nekk maam Thierno teguñ ci une semaine yàlla affaire yi meññ suñu borom ubbil ma porte bu rëy te teewul foofu sax amoon na gàllankoor moo tax rabaa damay sant benn xaritam ki tax ñu xamante sëriñ neex. sëriñ neex yu sàll ñu ngi koy nuyu bu baax parce que dama dama mës a tijji benn place. Mhm. donc du ma sori foofu nag. bi ma mhm. tijjee place bi. Mhm. man aw ma contrat. mais caabi lañ ma luwee. mais yàkkamti naa jël place bi ndek am na keneen ko bi mu am ay jafe yu bëree bëri yu moo war a génn nag. korite googu. am na benn korite maanaam dañ dañ la luwee. luwee keneen. kooku am contrat. yow ñu jox la kele bi kese man ñu jox ma kele bi. mais xam naa ci kayit damay génn waaye am naa fit gi parce que am naa link bi ndax man yàlla bu ne boole na ma ak ay kilifa ay procureur ay mais suñu borom ñi ma booleel dañoo mat tamit. bi ma demee ba am jafe-jafe dem laaj leen ne leen man kat dañ ma tooñ dama joxe sama xaalis mais joxuñ ma contrat te nee ma da ngay génn. Mhm. korite googu ci biir place bi laa fanaan man fanaan naa sama place at door a am appartement. pikin mhm. gi. ñu génne ma. mais yàlla dimbale ma. Mhm. li naan rek comme li ma la wax rek borom nday ju liggéey. borom nday ju liggéey te dañ naan bu nit ñi di ut xaalis la utal nit ñu baax ñi. man ma mhm. la loolu te ñaanuma yàlla nit xam sama soxla waaye man bëgg naa ko am soxla waxama ko. loolu la di ñaan di faj soxla te kenn du la xamal. Mhm. Ah, loolu am na solo bu baax a baax kon ba tey rek ñi ngi leen wax ne yéen a ngi seen seen YouTube TV di leen wax ne bu leen fàtte di abonné tey partager bu baax a baax ñi ngi ñëw di waxtaan ak yéen ñi nga xamante ne da ngeen di doog a ñëw ñu di leen wax ne ñi ngi waxtaan ci cadre soxor li nga xamante ne moo lembee jamono ji di wax nañ ko léegi ñi nga xamante ne mi ngi ci famille yi mi ngi ci sëy yi mi ngi ci bërëbu liggéeyukaay yi nit ñaa ngi rayante nit ñaa ngi soxorante di gàllankoor nit ñi bari na ñoo xamante ne ñi ngi fi silmaxa ñàkk seen i bët ñii ñàkk seen i tànk ñii ñàkk seen i loxo kenn tegu leen ko lu dul ñi sës ci ñoom maam Thierno lan ngay wax ñi nga xamante ne dañu soxor lan boo leen doon xal wax pour ñu changer lan nga leen di digal tax ñu xam war a mën a changer ci loolu. Euh, ñoom bu ñu amee tuuti seetlu rek war nañ changer. Mhm. parce que xoolal yow ki lay soxaree. Mhm. nga natt sa bopp natt ko. Mhm. man bi may door a tijji place bi am na téer bu ma dendal quoi du ma tudd tuur tamit. mu ne maam Thierno du ñaw ñaw jigéen ki ñaw góor rek lay ñaw. koñ bi yëpp daw ma. yàlla xam na ni pikin kii ñu nekk. ki ñaw ku ma ci jox ñaw dama la koy may li may am ci biti. côté Ndakaaru gi. dëgg la point 1 gi almadi geeg yooyu. Mhm. benn client moo ma gënal dix clients yu nekk fii. dëgg la dama bëgg nga mu leer. dégg naa la pour wax la rek kooku gàtt xelam. Mhm. gàtt xelam. man du ma exposé. Mhm. te billaay wallaay ay kilifa yu ñuy tudd rek laay liggéeyal ci réew mi. du ma exposé mooy ni kii def mannequin sax du ma ko def. parce que loolu day lateel day day lateel ñëw sax. déggoo lu ma la su ma nekkoon ci douze sax nit ñi fekk ma fa. loolu am na yaa mayu yàlla la nekk fii bëgg sama yére pour mu am ko problème la nee naa la nit mën na may indil ñëw nekk Pikine ma jël ko may la ko te yàlla tax ah, du waxaale waaye xam naa ne sa benn ñëw boobu ma la may ci biti dama koy am koñ boobu kenn du ma ñawloo mais dañuy jëkk jékki rek gis 4 x yi di gaare guddi gi yenn artistes yi daw ñëw mm-hmm. ñu ne waa may booy bi fu kon la ngay ñëw artistes yi yow samay xarit lañ dama leen bëgg ñu bëgg waaw ah, loolu baax na dama leen sama xol lañ nekk mm-hmm. parce que képp kuy bégal doomu aadama ñun dañ la war a bégal la dafa am si nga suñu borom dañu pour ñuy bégalante. Mm-hmm. yàlla da def artiste tey. Mm-hmm. pourtant moo tax nga choisir artiste pour bégal doomu léegi man yàlla def ma ma nekk styliste man war naa laa mën a bégal. tey benn Raba Fall mu ngi jël doomam tuddee ko gën di mindeef. Mm-hmm. amul intermédiaire Seydina Mohamed direct la ko tuddee. wallaahi man mënuma bëgg Seydina Mohamed. salaahu alayhi wa doomam Seydina Mohamed ma courage tey bu fekkoon na mën a tuddee doom yow sa turandoo da nga war a yóbbu valise. na laay déedéet la maa ngi waaj lu nooy. da nga a a xam ne moo gën ci àdduna bi. Mhm. kan ma ko war a valise. soppay Seydina ah? Mohamed léegi yow artiste bi tey. Mhm. nga doomu Pikine. Mhm. di représenté Pikine. yor image yu Pikine. donc boo ñëwee ci man dama la war a ci sa carrière dama ci war a def sama participation parce que man aw jàppale moo tax ma bëgg di dimbale. maanaam man sama dund financièrement parce que nit ñi dañ lay ñee ba duñ la bëgg a dimbali. waaw loolu de bari na fi ñi la ñi lay ñi ñi nga xamante ne ñoo war a dimbali. moo tax ñoo lay ñoo lay ñee néew na nit ñëw indi programme am wala indi projet am. Mhm. wallaahi la jëm te bu ma si jàppul financière bu ma la mayul junni naa la boole ku la may ñeent fukki junni. ndeysaan loolu yàlla def na loolu baax la rek. Mhm. di la ñaanal tamit loolu la yàlla xol boobu la yàlla ma ndax gis nañ fi ñu la ëppale gën laa mën te du yàlla mayu leen xolu ñu joxe. Ah, ndax yaakaar nañ ne buñ la defalee nga raw leen. mais sant yàlla foofu boo demee ci programme ngay xam fay gi. Mhm. korok bi Eumeu Sène di def open press am. Mhm. mais ñaata autorité ñoo fa nekk ay maire fa nekk. mais dafa mel ne open press bi man maam Thierno maa amul kenn ku ma fekkul fu ma toog jox ma micro. mooy li ma la wax rek. Mhm. fay suñu borom moo gën bu doomu aadama bu doomu aadama dëgg la kon ba tey rek ñu gën a wax gën a si soxor ñuy maam Thierno rayante bi ci dëkk bi noo ko gisee. rayante gi rayante gi rayante gi waaw bari rek ak ak am jot rek am jot nga ko jàppe man pour man yéen lépp loo gis rek am jot la mooy li ma la wax rek mhm. mun ma fekk maam Cerno am lii nga bëgg koo yàqal man nag sens bi ma ci am mhm. dunduma loolu ki ma gën a bañ man kooku laa gën a téye chaque jour ma jël sama noonu teral te da xam ne kii sa noonu la ah, bien sûr chaque jour koo xam ne dala compte xolam xam naa ne boo ko xaree bugg la day am jafe-jafe moo xam yoon la moo xam leneen la nga ñëw jël kombaa bi porté ko yàlla may la ndam. mais nii nan nga koy bañee ba pare. waaw soxore ko. nga am soxla am xalaat yow sa xel joxu leen lu du yow kii soxore naa ko li mu am nga ñëw ci moom di ko wax sa soxla. barke loolu chaque jour matériel suma noonu. te day jël. ah jëlul nu muy des fois nga am jafe-jafe boo xam ne sa ndey mënu koo lijjanti sa baay mënu ko lijjanti benn kenn nga yaakaar pour mu régler ko. kon war nañoo defaraat xol yi. da dem dimbale ko mooy li ma la wax rek yàlla ay mbiram moo doxalee noonu. Mm-hmm. parce que chaque jour ki ngeen soxalee mu ngi gën a avancé man xoolal nii nii may waxee nii. 4 mm-hmm. mois tijjiwuma suma place. kon nooy li fooy liggéey. waaw yàlla jeexul. mais tijjiwoo sa place sa client yi nga xamante ne dañ lay soxla fan lañ lay fekk fan lañ lay gisee. bëri na ñu may liggéeyal mosuñu xam sama place du mel. yow yaay ñaw dem yóbbul leen. bëri na ci daal. macha allah ñu ko macha allah kon daal comme ni nga wax ne rayante bi soxor lii la. ñàkk jalousie la ñàkk xam. xam àdduna ndax yàlla moo mën lépp mooy séddale mooy xool jaamam ku ko neex rek. Mhm. mu jox la. léegi bu la yàlla joxee nag benn jaamur bu ko foqati kooku day sonn rek. mais tamit am na ñoo xamante ne dañuy am du ñu dimbali seen seen mbokk maam Thierno ci ban genre la bokk genre yi nga xamante ne dañuy dimbali seeni famille dañ leen di jàppale comme am na ñoo sàmmalaa dafa bari. Mhm. tey jii dañ naan man su ma amee damay teral nit ñi damay teral te yow fi nga xamante ne fi nga bokk doo leen defal. waaw loolu moom dama lay ñaan bis boo amee émission boo xam ne pour nit ki da koy da nga koy da ngay wëri ji ginnaawam. Mhm. dama lay boole jox ay numéro nga dem laaj samay mbokk man samay mbokk seen sac laa. man boo séenee may reyante samay mbokk ñoo tax. Mhm. man sama mbokk kenn du ma mere ku ma mere rek da ngaa xamul rek. loolu am na solo mais amul lu sama mbokk bëgg ma toog def nii. mais di nga nekk sa biir biir i mbokk di nga nekk ak ñoo xamante ne ñoom leer na leen ne yaay seen biddéew yaa leen di taal boo tàkkul du ñu taal du ñu tàkk ñoom mais dañ lay soxare ba nga xam ne kii dañoo bokk mais daf may soxare ku ko ci def jafe-jafe yi dafa nekk sa kanam loolu moo amul sax ma dem loolu am na sax dañ lay soxre mais du yàgg ñu am jafe-jafe dund nga lool sa biir famille dama koy dund ma doon wax ku ma bañ ba yéene lu bon def ko tey midi une heure et demie suñu borom teg la la bëgg a teg ñun yàlla moo ñuy fayul parce que dañoo jël lépp jox ko mais man samay mbokk amul lu ci nit soxla moo xam lu ci bëri nag. Mhm. man nee naa la su may reyante laa la wax samay mbokk a tax. Mhm. ndax nee naa la benn nit rek réussir ci famille. Mhm. loolu du réussir échec la. échec la. man damay ñaan si samay famille am ay fukki maam Thierno naam yàlla moom moo xam programme mais ñu ngi progressé ci côté boobu ba suñuy rakk. Mhm. ca lañ nekk ñu dimbale leen ndax man famille bi ma bokk. Mhm. samay rakk chaque jour dama leen koy wax. xëy na ñoom am nañ mag muy maam Thierno. Mhm. waaye man aw ma mag bu may dimbale. yaay taaw du ma taaw sax dama am jom rek. <laughs> kon ku ci nekk rek war ngaa mën a jàppale fi nga ñi fi nga bokk. jàppale say mbokk jàppale ñi nga xamante ne yaa leen tane te bañ leen a soxore ndax nit ki xam nga sa tey mais xamoo sa tey xam nga ko ta tey yàlla mayewul day able tey yàlla mën na la may mu abal la sax laay wax nga war a jàppale benn nafi doo ko jàppale ndax lan toujours yaa ngi xool ne kii bu ma ko jàppalee dina ma raw mhm. mais tey la la yàlla jox mën na koo nangu jox ko nafi dénkaat ko ko est-ce que nafi bu melee ni yow dina la jàppale dëgg la est-ce que xam nga leen dafa am benn centre commercial bu nekk sama euh, ami maar la tudd mhm. man téyeer laa de. Mhm. mais ña fa nekk ci téer yëpp maa leen ko jox maa leen luy foofu maa leen wutal place. centre commercial dama fa am place bokkut ak fi ma sama fi may exposé. Mhm. téer nga yow téer nga. waaw ñëw ne ma amoo place ma dooleel la. Mhm. wutal la place nga ñëw jege ma ba pare di jël ñaw di la ko jox. yow yaa ngi utal place yow yaa koy utal place dëggal ma la mu toog di ñaw nga dem jëli ñaw joxaat ko moom muy ñaw di fa yeeku Serigne Touba xam nga nit du ay sama téléphone yi ay téer yoo xam ne comme man lañ dañ may remercier bay jooy ba pare téeri sa nekk fii rawatina banlieue dama leen signal pat ne leen ku leen laal laal ma ku leen tooñ tooñ ma maanaam yaay seen avocat ci lépp ba pare di yëkkati ay commande di leen ko jox boo ñëwee sama kër sama saal maa ngi teg ensemble yi nii parce que lépp mënu ma ko liggéey. kon bu ñu déggee. ñu xam ne mm. maam Thierno doxul ci soxor doxul ci iñaan li ko yàlla wërsëgal mi ngi koy partagé ñi nga xamante ne yàlla boole na ak ñoom dina jàppale di wax ne ku nekk ci àdduna war ngaa roy ci loolu ndax nit ki da war di sagoo di dimbali comme li mu wax ngay bokk ci ñiy jàppale di bokk ci ñiy joxe te bañ a bokk ci ñiy soxore ndax soxor amul benn sens. amul sens xam nga boo juddoo tey sa papa am lu ne gàññi mhm. nga fekk lépp maase mhm. da ngay dund boobu rek ngay xam mais boo dundee lu metti te nga ne doomu góor nga doo ñaan yàlla sa moroom di ko dund mukk te loolu laay bañ nit di ko dund te da dund man da ngay ñëw léegi nee naa la amoo machine amoo place ma fexe nga am place amoo machine ma lebal la machine danga koy lebal mu di la ko fay par weer waaw moo xam nu mu ko dooree rek nu ko lijjantee rek mais nay liggéey rek ma koy suivre di jëriñ ay mbokkam da ngay nekk jigéen jigéen parce que man mhm. góoma sax jigéen yi nga xam ne par exemple dañuy am jëkkër rek tëdd rek néeg ba rek mhm. man liggéey laa gëm nga ñëw nga ne ma lii laa bëgg def en tant que terre ma ne la boo mënta tijji place defal vente en ligne ñëwul ma lay jox commande créer benn panel boo xam ne sama complexe la damay dugal ay produit yu bëri ku ci bëgg dangay dem jël boo ñëwee ma jox la nga dem jaay ñëw indi ma sama maanaam da ngay ñëw ji nga jox nga jox ma mm. ci lépp du ñaw rek ba ci lii nga cheveux yi nga yor nii. may jaayaat nga dem jaay ak loo bëri moon loo bëgg man bëgguma kuy taxawaalu. man mouvement laa bu tudd vision Sénégal développement laay dox. moo tax ma ne la man jalousie nekkul ci man. képp koo xam ne yére naa la lu bon rek. vision Sénégal boobu noonu. danga nga cee dugal ñëpp muy jigéen ñi muy góor. képp ku bëgg a liggéey te liggéey ñor la. képp dama am panel bu tudd takku liggéeyal suñu réew. takku liggéeyal suñu réew. waaw dama bëgg liggéey loo xam ne biir Sénégal. dinaa ci dugal Kumba Diallo bu ma man sama tur du fay. parce que dafa am ñu mën koom ni nga waxee ñoo xam ne dañoo yor lu ne gàññi nekk Pikine nekk fii. Mhm. dimbalewuñu kenn. dëgg la léegi ñun ñi nga xam ne amuñu dara nañuy boole li ñu am mu néew mu bari ñu siy jàppalante suñu biir. dëgg la pay ngi ca kanam. doo ko réccu de ndax nit moom ku ko jàppale ku ne rek suñu borom jàppale la te bu xam naa ne yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax a baax. ci ci sant yàlla rek ci jàppale boobu comme ñooñu nga leen di jox ñuy jaayaat. est-ce que tey ku demoon ba bëgg a ubbi place pour jaay sëva kese kese kese kese yow di nga ko mën a accompagner. Ah, pour mu financer ko pour mu mën a tijji jaay. bu dee sëva la par exemple mën naa la bañ a financer. Mhm. mais mun naa la booleeg fi mu jógee directement. Mhm. parce que àdduna loo gis ndànk-ndànk la. parce que tey mënu ma jël benn somme bu ma bari rek tijji la sëva parce que sëva gaawul noonu comme ni ko foogee te yéen da ngeen di leb rek parce que du ngeen fay ay yu baree bari. mais tey mën naa par exemple si boutique bi. Mm-hmm. nga jël comme frisé yeeg yu bari. Mm-hmm. nga di ko exposer sa statut. Mm-hmm. bu waree jar 4000 mën na la 4000 lay jar yow nga jaayee leneen li. yow bul encaissé sa xaalisu kay bu kay bëggee rek wool benn rabat comme cag-cag la yor. moom mu ñëw jël si affaire bi nga yóbbul client boo pare nga jox ma sama xaalis. su dee nga bëgg a def natt comme natt nii. natt sa ba. boo ñëwee ma dooleel la. adduna loolu la jàppal la ma jàpp. comme ku bëgg a def nattu sëfa ku bëgg a def nattu jeesneer moo xam loo bëgg a def téléphone. téléphone man mën xam naa fi moom réew mi lépp dañ koy bëccëg man bu may wër connaissance du pour man nee naa la dama koy wax ñëpp ba ci autorité yi fi nekk yëpp mhm. ba ci commissaire wala commandant xaman bu dee man ak man rek mhm. non ñaanuma yàlla ñu di ma jàpp dëgg la parce que duma ko def du ma tux du ma naan du ma sàcc ma wax lu dul dëgg mhm. waaye bu may ñëw di xaritoog yow bu ma gisee lu rafet ma jàpp ne ci yow lu baax pour sama ginnaaw la samay njaboot dëgg la dégg nga ma dégg la Raba mi bu may xaritoog moom. Mhm. du pour man dama bëgg bu tey nit ñëwee soxla ay artistes. Mhm. ma mën a jël Raba def ko main libre. Mhm. Raba di dégg ñooñu ne ah maam Thierno sama xarit la. baat boobu laa bëgg a dégg. loolu moo tax man damay tabax ci diggante doomu aadama parce que tey suba mën nga ma soxla suba mën naa la soxla. parce que dama njaboot te njaboot yi ma yor ku nekk ak sa bëgg-bëgg. ñii lii lañ bëgg ñii télé lañ bëgg ñii lii lañ bëgg. moo tax santaat yàlla bu baax a baax rek di kontaan tamit bu baax ci teew bi nga fi teew tamit di ci kontaan bu baax a baax di wax ne kontaan nañ ci émission bi bu baax mais nit ki nooy àndeek moom ba pare ne da koy soxore waaw mooy li ma la wax parce que des fois nee naa la ñu dem programme am mhm. maam Thierno dem mel ni mu war a mel parce que mhm. programme dama koy waaj mhm. sañ solu moom dama ko bëgg comme yi ngay wax nii ku la ku la wax na ko de te loolu la ñuy ma sol nii mu la waxoon bi di jar lii nii nga may la ci wax ma ñaata mètre nga bëgg non buñu paree jox dañuy gisee <laughs> incha allah yaay dégg <laughs> mhm. buñu demee programme damay sol ba mu dem programme yaafu su ma nag bu may dem lu mu bon bon benn weccet bu ndaw mu néew mbari dina nekk fii te des fois nga fekk fa yenn classe gaay bu ñu wootee da ngay jug def dëgg la mais yàlla mooy joxe cër mooy darajaal doomu adama mm-hmm. ñun yàlla moo ñu darajaal mm-hmm. te nag bul fàtte ni maam Thierno lañ ma tuddee mënu dem ci mbooloo di fa gën a yaafus. mooy sa maam sax nag. nag na ay nag lu ñu bëri bëri bëri mm-hmm. moom moo ne ab turandoom lu nag bëri bëri duñ ci doon gool gool mooy nag yu gën a xiif. yu a xiif non non ab maam Thierno ca kaw rek lay nekk bu nekkul pay deuxième lay nekk. yaa ngi dégg fi waxee. Uh-huh. léegi nag gars dañuy salu loolu. image yooyu bi dem parce que am na ñoo xam ne tey yéen autorités yoo xam ne noonu la ñuy fonctionner. Mm-hmm. ñoom seen dund ñoom dañuy bëgg yow ñoom rek la ñuy xam ñoom rek la ñuy wax duñ tudd kenn duñ soxla la loolu nag am nañu autorité yoo xam ne dëkkuñu ci quartier bi dañuy ñëw fekk comme benn maam Thierno moom moo dëkk ci quartier bi moo xamante gars yi yow loolu sa avantage la parce que yow yaa ngi leen di wan nit ñi. waaw léegi loolu laa lay wax moo tax ma ne loolu du yëfi nit kilifa du doxee noonu man damay ñaan tey bu ma demee ba nar a màgg di di sóobu ci politique ma créé dix maam Thierno yoo xam ne maam Thierno mënut a dem fépp. mais léegi ci kan maam Thierno jóge nga ci Lamine Gueye. waaw après ma jóge fa ay jafe bi may nekk ci Lamine Gueye ay jafe-jafe yu métti laa fa doon dund. comme la donc boobu jara mi nga xam ne sama xarit la sama idole la. Ah, ay mbokkam dañ ma doon lu nekk lañ ma doon yàq ci internet bi. Hmm? may affronté ak loolu. mais teewul donc dama dama dama dama ñàkkanteeg ñoom ba fexe exposé Lamine Gueye biir Pikine. mais comme lan lan lan lan lan lan la doon yàq. lan mooy li ma la mooy li ma la wax rek. Mhm. parce que ki ñu maam Thierno la ku boot bukki xaj mbëw la. Mhm. tey bu ma jëloon sa photo cinq jours dugal ko Facebook. Mm-hmm. non billaay walaay taala faaw mu am ay kii ñun la lu ñu laal moo mel noonu. biñ biñ ko defee gars yi di kii ñu dugg Facebook def ay vidéo wax ma lu mel ne xamee. mais da nga nekkoon ci jar avant. déedéet loolu nit ñi ba léegi comprendre man mosuma woon nekk si jara mosuma woon doon fréquenté kër jara jara dañoo rusante mais teewul dama ko bëggoon parce que xam nga tax. Mm-hmm. bay bi muy dund moo neex. dëgg la jara dafa simple. Mm-hmm. te man damay jukko boobu laay dundee man tey sama dëgg la di leen tegal café Touba di jox ataay ñu naan li may doy na ma seede. la boo ñëwee léegi la sax salle bi commencé am photo mais wallaay la si mënoo woon a xàmmee kat moom moom kër bi. dëgg la parce que loolu mooy simple. Mhm. comprendre fi may xee. Mhm. jara nag ak mën politique am ak gaayam mhm. fexe jabolise waa ji ba waa ji nag ma. Oh. mais mu bàyyi la pour pour la mu bàyyi la ah, dootu ko defati. ah lu ca da nga demoon di wuti ànd ak maam Thierno. ki la war a may ndam. nga yàq seen diggante. non doo ndam. mbaa loolu tax mu xañ mu ñàkk. waaw bi ah ceer ma dem ñu toog nit ñi di ñëw waa jara yi di ñëw di ma seet si. Mhm. ma dara rek. Mhm. mais dafa am sama benn xarit boo xam ne maam Thierno iPhone. Mhm. naa dinaa ko indi sax mu jàpp ci émission bi. moom incha allah rabi ñu ngi koy xaar. <laughs> bu leen max yeeg. waaw ngeen bi ah. <laughs> waaw comme ça <laughs> ngeen invité ko. dafa bëgg jara. mais dama ko wax ne ko. jour euh, jour élection yi jara dama koy gagné ba pare ma ne yow ñu bokk benn néeg tëdd te dama ko gëmoon. parce que gëwuma défaite. Mhm. ndam rek laa gëm victoire. Mhm. maam Thierno doon jeune wu nag saan di jeune wu vraiment mhm. bu ma ànd ak Lamine Gueye day jeune wu parce que jara moo nekk ci xol bi. ci xol ma mag la sama idole la. ndeysaan mu fexe ñu dem si jara. bi nga jógee ci Lamine Gueye nga dem ci jara dem ci jara. kon yow coow lu coow wax. boobu victoire laa doon yóbbu. ci jara ma dem si jara ne ko soxlawuma sa dara. bu la neexee sax ma def say liste. Mm-hmm. benn objectif laa mooy nga gagné ma pare remercier la continuer dem sama yoon. ñu ànd di liggéey liggéey boobu. Mm-hmm. jara dugal na ma ci ay listam mm-hmm. ñu jara xam na loolu. campagne àdduna du neex bañ na ko budget de campagne wala dara déedéet. mais nga campagnal jara. suñu bopp wàccal ko si terrain bi rayante jël suñu image exposé ko. waxtaan ak askanu Pikine doone fi nga demoon taxawal fa Lamine Gueye foofu nga delluwaat taxawal fa jara. waa si. parce que parce que la rek pour man Lamine Gueye mooy ñàkk sens ak jalousie bi nit ñi bi nekk ci ginnaaw nit ñi rek. mooy ci soxor la ko indi. loolu yëpp soxor a ko indi. loolu soxor a ko indi. Mhm. mais amaana ñooñu tey bu ñu bu ñu nekkoon nit. Mhm. bàyyi ma mhm. li mu bëgg a doon dama ko koy def parce que loolu laa gëm. gëw ma ànd ak yow nga ñàkk. yow daa gëmoo ñàkk. xaw ma ko. am nga ci droit victoire laa am. am nga ci ma ànd jara Mm-hmm. yàlla def na ñu liggéey liggéey bu mucc ay mm-hmm. mu nekk nit bu baax. yàlla def na mu gañe. Mm-hmm. mais gañe ngeen. xanaat fal na la kii jox na la poste foofu pour nga liggéey ci mairie bi wallaay xaaruma ko. waa léegi ànd nga ak jara jàppale ko ba jara gañe mais Lamine Gueye après nu mu def. woo na la. non Lamine Gueye télé loolu xamoon na ko. parce que avant may dem ci ci jara. dama toog bureau man ak moom ak yàlla ak benn xarit. ma ne ko maa ngi ñaan suñu borom. ci mhm. barkeb Serigne Touba bi nga xam ne sama yaakaar la àdduna ak alaaxira mhm. bu ma leeree ni yow doo am ndam. Mhm. si suñu ànd man ak yow diggante boobu yàlla na ko yàlla dagg. teguñ si une semaine loolu am. ngeen tàqali ko. waaw loolu bu dee borom xel nga rek. da xam ne mbirum suñu borom dafa am ñoo xam dafa am ñu mu ànd yàlla du leen toroxal mukk mooy li ma wax rek ku ndayam liggéey biir kër baayam wala ku nday ku baayam ku baayam gërëm ndayam. tiital tiital ci moom. dëgg la yàlla def jara dem ñu jox victoire bi rek xaaruñ ci moom dara. Mhm. wallaahi lazim jara xaaruma ci moom lenn. billaahi wallaahi jara xaaruma ci moom lenn. mais Lamine ba tey woowu la. non woowaguñ ma. parce que du ne woowuñ ma moom. Mhm. woowuñ ma des fois xanaa ay yenn nit ñi ñooy dugg ci Facebook bi. Mhm. des fois di la classe maam Thierno foofar. ñenn ñi ñenn ñi tekkiwul dara ñi xam nga di la ci wax yu ne. mais yooyu da ngay bàyyi suuf. parce que àdduna du neex ba nga jàkkaarloog ñoom bët ak bët. Mhm. ñu posé la question boobu. dëgg la te it ñooñu ko wax sama damay jàpp ne rek bis day jot dama leen di soxla. dëgg la moo tax du leen tontu. waaw tontu waxi noonu. du aw ma seen ma jot bi sax. <laughs> mais kon kon macha allah mais tey jii bu la jarawoo woon da ngay dem. Hmm, ci ban fànn la. maanaam ci pour nga ñëw ngeen liggéey ci mairie bi. waaw non liggéey ci mairie bi. leen la rek liggéey ci mairie bi ñu ngi si développement Pikine Nord rek. man leen rek laa soxla moom. Mhm. mooy secteur artisanat. Mhm. ak culturel. Mhm. nañ leen fonk. dëgg ndax man dama sonn ci artistes yi nag. des fois dañuy ñëw sa kër wax la problème yoo xam ne. suñuy autorité ñoo ko war a def. dëgg la bàyyi xel suñuy autorité Raba am na benn Oscar bu mu doon def ñàkk moyen moo tax mu perte. mais comme tey yaa ngi si côté boobu yow jege nga jara te jara moo toog kon yow da nga gën a war a mën a dem ci wetam di ko ci pousser xëj na xelam mën na daj si loolu war mën na fa bañ a daj. waaw mais kon yow mi nga xam ne yàlla boole na naag moom nga ànd ak moom ba mu toogaat yow yaa ko war a gën a mën a jege pour gën ko fàttali daal. noonu xam nga jara dafa partager commission yi culture bi kii la ko jox kii lii la ko jox. Mm-hmm. léegi ci côté culture bi tamit. donc da ngay bàyyi kook mu doxal rek. mais teewul man chaque jour maa ngi ci développement Pikine Nord lu mu soxla suba ba ngoon maam Thierno moo nga ca. incha allah incha allah kon maam Thierno dañ lay wax rek ne émission bi temps bi ñu amoon jeex na ñu wax la ngay tàggatoo. waaw santaat yàlla rek julliwaat mhm. ci yonente bi sant samay xarit samay xarit yëpp ci mel ni ñoom maam Thierno iPhone Cheikh Fall Ousmane Gueye suma transitaire mhm. sant sama jawar waaw macha maa ngi koy ñaanal rek ci borom defal ko jàmm. amiin amiin ñaareel mu koy dégg rek. Mm. <laughs> waaw di sant daa ragal de. rek. Mm. waaw benn rek incha allah sama yaay tamit ma koy ñaanal parce que mm-hmm. ginnaaw yàlla lépp moom la ma koy ñaanal bu baax ñaanal suma maam sëñ Thierno juf Lambaay mm-hmm. di ñaanal sama xarit yëpp ñoom maam Thierno iPhone mm-hmm. mafia maam Thierno bi ak waa complexe bi ñoom Abdoulaye Doumbia di ñaanal aussi tamit takkul liggéeyal suñu réew képp koo xam ne rek jeune talent nga rek maa ngi ñaan suñu borom yóbbu la ci kaw ci barke Seydina Muhammad di sant aussi Raba mu yombal lépp maa ngi koy ñaanal bu baax a baax di wax le 27 mars sama jour anniversaire sa jour anniversaire invité wu ma kenn def ma dara. damay bañ xam man damay ñëw damay def esthétique nit ñi naan ma fan la ci esthétique bi laa koy partagé. waxal fan la rek waaw lii dama koy coté. waxal fan la rek. <laughs> jërëjëf merci. waaw kon lañ leen ko waxee woon rek dañoo indi seen émission bi ñu fi indi woon muy soxor ñu doon ci waxtaan ak maam Thierno kon dañ leen di joxu rendez-vous ak émission bi xam ne soxor du jeex tey beneen yoon ci la ñuy ci la ñuy ñëwaat parce que sëy yi néegu sëy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 toujours maam Cerno Birahim. non boobu lu mu def yee yee <laughs> yow yow yow yow maam Cerno Birahim happy birthday to you. yow sa bisu juru dese na yow. borom la 27 mars. yaay borom yaay borom yaay borom bokkoo ko kenn du yaay borom. mam Thierno Diouf loo may mooy sa maam lambaay lambaay boobu eh, eh, eh. happy birthday to you yow sa bisu juddu del si naay joyeux anniversaire joyeux anniversaire yow yow happy birthday yow to you